ñaar rakkaa yi ndar may waxtaan sëñ saali war a waxtaan fallu gas jatara war a waxtaan ba ma ñëwee ñu jox ma fa teraang yu bëri jox fa sañ saaliwu sëñ fallu galas jatar li muy waxtaan ci barab yi bëriwul day dugg génn jóge Touba mu laajal ko juróom fukki junni loolu civilisé juróom benn fukk na ne cent mille laa soxla ñu jox la trois cent mille maamun sëñ Touba am na ci yow ndam yaral xafaaya bi aynal xal bi shaahiratan kamal isa iduma taxtal hakina sëñ saaliwu Mamoun bi mu amee ndam yow yaa jël battre record bi dañ lay jox kàddu gi nga amee yitte nga ne damay dem man leen jox leen waxtaan waxtaanee sëñ Tuubaa dina ñëw nga tàmbali sëti Cheikh Ibra ñaar dugg si ngay daaneel caatum sëñ Mourtada egg si loolu mooy li ma impressionné ci jataay bi Cheikh Ibra dugg si moo doon wane bi mu wane nag Mourtada egg si la caatum sëriñ Touba l'argent calait toutes les portes man ko amul chance du fekkee sama waxtaan ndax yombul kii day sama xarit jataay bi maa koy tijji di ko tëj laata ma jël kàddu gi dafa na ma sa xarit Amadou Sall bu président Macky Sall nee na gis na la ci sanab bi mi ngi ci jataay bi te million bi ma mujj jox moom ñi moo taal sama moto dugal ko sama poste na ma Amadou la ko siyaar yi doomi président de la république kon ki sama xarit la xaalis jafe na jafewul Mamour Lo da ko wax dana jataay bi dana neex xaalis am na fi lépp am na fi toog leen waaye nag sëñ Abo Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Mouxtada Moussa Ka ne def ngërëm ci Mouxtada ba fu ko soog mu ne xada moom Mouxtada nay dem rek jataay bi neex far Mourtada egg si way juróom soxna say Mbàkke Ahmadou Seyna bu jur ko Ahmadou Seyna bu jur ma joosi mu juraat sëñ Mbàkke muy sama jarbaat lenqe may muy sama baay may nijaay muy sama sëriñ nag far moo tax bi mu egg see ma summi kii lii bu amee ba nit ku sant Mbàkke di ko am grâce à Cheikh Ahmadou Bamba fifty ah maa woon wax na ko de sa ndey ja ndar soxna Xadi ba nekk fii ñëw sëñ Tuubaa moo daan wax ndey bu ñu waxee ndey du ñàkk kër Sëñ Tuubaa du wax yaay ndey góor a koy wax si Ahmadu Bamba kuy sa ndey la daan wax xari sa ndey jëla ci ndar nekk fii mu demee nii liggéeyam ndey ci programme bi la boobu jamono naqari ku ne di tàppale ku ne di wut amee yow bët bu seen nga ne kennal Cheikh Saliou te kii nag maamam sëñ Murtada Cheikh Ibra Fall sëñ Xaadim maa ngi leen di jox seen wàcc waaye seen maam Cheikh Ibra li Saliou da wax léegi moo njëkk a wan ne Serigne Saliou mooy dina secret mbóoti ci kër Serigne Touba. fii ñu toog jataa bi restaurant la dañ fiy jënd ak dem waaye ñun nag dañ fi waxtaani sëñ Tuubaa waxtu nekk xanaa moo xaalis jafewul xam nga li jafe mooy kaale gi sëñ Abdoulaye ibnu Seyxil Xadim dana kaale bu njëkkee ci ndigg nga taggal ko nit ku baax bu la gërëmee bu ñëwee ci baat bi da cay des man sëñ Tuubaa sëñ Saaliw lañ ma joxoon ci gën ci nit ñi mag galas jatare ñoo ko daan fanaanee bés ba bët set tur yu ma daan wooy moom nag galas tàmbalee sëñ Mbàkke la ma daan wooye moo tax ma def ko sama carte d'identité bi may defal extrait de naissance sëñ Mbàkke Mbàkke yi sëñ Saliou wax moo ne sama carte d'identité tur wi dem ma yëngu 87 jiitu is bu tarxee la xewoon Touba murid ji tabbi waaye man sëriñ Mbàkke Saloum sama maam lu ñu tudde Ahmadou Far Mati jur ko maam Maaram Mbàkke jur ko Mati Mbàkke juraat Ousmane mu jur Alañ Malik ci Tiwaawoon li nit ñi am bi ñuy wut invitation sëñ Tuubaa moo ne ci kër Maaram laay wàcc kon sëñ Saliou Seydou ak ñi jàng xasida ñi taxaw ñëpp man su ma ne asalaamaaleykum li may xool mooy lu rafetal jotaay bi mais nag fu mbooloo bëri bëri bu doon cent personne su ma gisee Mamoune Lo damay mel ni ci gaynde laa wéeru du ma tiit barke Seexul Xadim gaynde parce que nag am naa lu jafe mooy jant bi sama yónnee ko te guddi gi la lépp di sotti bu nit ñiy wuti koppar man sama climatiseur nga tàkk bala maa yeewu 18 te lépp Sëñ Tuubaa di ma ko jox loolu sëñ Blad waxoon laa leen di firil kaale gi dañ ko takkaloon sëñ Saliou ci ndigg li bi mu egsee ci baat bi moo tax mën na fee toog tey waaye bi Mourtada egsee su nañ ba xam ne mooy sëñ Touba kii rek ki sëñ Mountakha la xalif général des kii magam mooy sëñ Touba barki dem moo ne Cheikh Ibra Fall lay njukka kon ñi bu ñu di sët Cheikh Ibra lii jotaay bi war naa neex sëñ Mountakha moo woote Touba di sëñ Touba ne Cheikh Ibra Moussa Ka jàkkaaroog seex Ibra Fall ne ko mooy fekk waaye njorondaay mu ful ko boole ko ki gars yi nii doomi maam Seynabou Ndiaye lamp bi woon ci xarul ah neex na de. Cheikh Fall Abu Rijal yomalna wal wal jamaa Cheikh Ibra yoman bi sadani dalo yoman bi sadakhita Cheikh Fall Abu Rijal yomalna wal wal jamaa Cheikh Ibra yoman bi sadani dalo yoman bi sadakhita Cheikh Ibra Fall Abu Rijal fii fifti ñu bari moo leen may départ dama ne ñu bari moo leen may départ tapis vert bii bunt bu ne ubbeekoo na fi kenn ku ne xamee nga fi ku ne yokkee fi nu ne te yenn saa yi retour bii dillu si ci moom du ci am lu ko neex waaye nee na kër ma gën a mën a def lu metti moom laa gën a mën a xool di bég ak man koo teral ak mën a sonn ci moom ma ne ko ndax lan mu ne ma sëñ Saliou daa fees sama xol ne ma ne ma ne ma ñaari yitte ñooy tax ma mer ma ne ko lan mu ne ma ñaari rakkay ndar wala 28 décembre jot awma lu ma ci def mu ne ma bisub sëñ Saliou ñaar rakkay ndar jot aw ma lu ma ci def moo may tax a mer mu waaye lu dul loolu man fifty yëguma ko tey ba noppi nag lu ndey jooram def càmmoñam du ko yëg ñaar dugg nañ ci barab bi ñoo xam ne sëñ Tuubaa jur seen bàyyi loolu yombul sëñ Mourtala am sëñ Saliou dugg na fii ah sëñ Mourtala mu sëñ Saliou dugg na fii kii ak si nii bàyyi baay ma moom yoonu murit kii agsi nii bàyyi ma moom yoon wi bàyyi bàyyi mooy sunub sëriñ bàyyi bàyyi ma julli woon ci géej gi bàyyi bàyyi ma taxawoon biroo ndar kii xaside yi bàyyi bàyyi ma ko bind dama ne kii toog bàyyi bàyyi mooy sunu sëriñ bàyyi baay ma bindu xaside yi bàyyi bàyyi ma julli ci géej gi bàyyi bàyyi moo tax woon bureau ndar kii toog li ko indi ba mu dugg fii loola feex la sëñ tubaa dañ ko ne woon liggéey ndey ak sa ngërëm ban moo cëpp doole sëñ tubaa ne ku amul liggéey ndey du ak ci man na ba ma koy gërëm ne ñàkk liggéey ndey dëgg mooy ñëw ba jub sama buntu kër gi romb ko dem te eh, jàddoo jigéen bu amagul jëkkër àpp sàcc la bu amee jëkkër sàcc na bu amee doom tëj nañ ko kaso bu doom di màgg yàlla ko mu génn defe naa bu weesoo Saliou Samb kenn jiituuma ci moom kii man maa xam li xew ba kii murit la te par loolu ba noppi dama ne Seydou te fifty ne yàqoogul yàqu mooy da ngay gis koo xam ne day nekk fii Dakar ubbu fi dara di liggéey muy dox benn sëtu Seex Ibra ñëw mu raam lemu am mbàkke mbàkke ñëw mu raam lemu léegi mbàkke mbàkke bi bu indee ñaari moroomam sëtu Seex Ibra bi indi ñaari moroomam ñu tàmbalee garam place kooku miin ngi muy miin kilifa yi day jékki-jékki ba nga bew ak boppam foo xam ne àggugu fa te loolu oyofu kilifa yi waaye victime yi yàqoogul te yàlla bu mu ko dal tey la gën a mën a warmaan njaboot sëñ tubaa gi tey la leen gën a mën a teral tey la gën a mën a joxe àddiya ba noppi bewul soppikuwul bu sëñ Tuubaa toogee nag Seex Ibra toog doy na sëkk taw tawféex ndax barki dee mën ak sëñ Muntaxa jàngalaat nanu lim def nii amul lu mu koy yokku de moom nun lay jàngalaat nu xam ni Seex Ibra Faal moo wane sëñ Touba Cheikh Ibra Fall moo liggéey liggéey bi moo jàng sëñ Touba bu doon école la Cheikh Ibra Fall professeur bi jàngal ko nit ñi ba ñu man koo xam sëñ Mbacke Mouride wax na ko lii mu defal sëñ bii léegi amul fu ko sëñ Touba bind su mil leen ma mbaxana raamal leen ma bërëmu leen sama kanam bind ko fenn Cheikh Ibra Fall ko fi indi loolu moom daa war a leer moom ku jóg ñett topp la boo leen yónnee ñu dem nga woo leen ñu bàyyee seen sant bàyyi du yoo sab sant grâce à Cheikh Ibra bu amul loolu du am. moo ko fi indi sëñ Tuubaa bind ko fenn minal alif ilal yaa fenn fu sëñ bi bind ni dee leen ma raamal dee leen bërëngu ci man bu ngeen ma juwee sopp leen mbaxana summi leen seeni dàll sëñ Tuubaa bind ko sàkku ko it ci ñun ndax nee na yéen ñëpp ngeen topp ma ak ngeen bañ maa topp ñoom waaw ñëwal kaay kaay fifty nee na nañ la dox rajo bi kafaytani نجيته بيا نجير يا ولي كفيتني إبليس إن جيولي أيسا من الله إن جيولي إبليس يسنا ديته بيا ولي nafaali xayri laaw fin dakaaru laasan li jarahul makaaru xalamani rahmaanu fi safina biannani xadimu sil madina barra anilaaw ladaha konakiri kulli jaalibin ilal manaakiri ashab nilaw fi karam basa xablu mubarisi wa anni xalbasa daxaani reyimu inda daawmi له بما خناه التساومي يسر للمنى لدى لبر ولي من خاد لما خاب عن كل ولي لي خاد بدر الأسود من سسى الواسي والحسود يقود لي حيث أكون الذنبا لله خلصت هند الجلوى وسانني هما يجر البروى كتابتي قبل لدى البهور كفى حياتي يلا المدهور هل لمني الغليم هند الساخرات مما يسعى وكفاني الكافرات لم ينهني هند البهور المخرقات بحن خمر أو دواء الفاسقات يسر للجميل هند المهلكات ما ظانني خنجالي بن للمسركات بات من لي كان هند الواسعات قادت لكلكل ردا وساتهات مدل هي الأنوار هند السلمات وسالمين من كفاني صدما سهادتي عند الإله إلا إلي زهرة عند سبيل الملاي لم ينوني عند سبيل الخموري شعر باخ له أموري دهرني الله لدى ahlil kitab min ashaqawati wa min kulli hitab akramani inda zawil israki man khadani lay bil idraki najaytu biya